ñu ñëw nag si ay révélation yu am am solo ay jàngat yu pertinent jëm si propos yi nga xam ne Cheikh Oumar Diagne mën nañ ne da ko fee waxoon waaye ni ki démb gis ngeen conférence de presse bi nga xam ne nag waa ahlu murid daan nañ koy amal ñu dégg fa nag ay kàddu yoo xam ne daat nay doy waar loolu jëm si ki nga xam ne nag moo di Cheikh Oumar Diagne dinañ si ñëw ku si mel ni Serigne Imam Khadim Bousso kàddu yi muy wax nag sénégalais yi am na nañ ko gisee di dem bay wax que nag di Cheikh Oumar jamono bii li nga xam ne nag moo di deretam daal dinay dagan mu nekk nag loo xam ne daal dinay doy waar lool ñenn si sénégalais yi seen gis-gis mooy harcèlement la jëm si kii di Cheikh Oumar Diagne ak lu mën di xew bokkoon na si ñi nga xam ne nag doon nañ xeexal lii projet bi ba mu jaraloon ko li nga xam ne nag moo di kanam kon nag jamono bii lu mel bu ko arrivé war ñoo mën a taxaw daal di koy jàppale bu fekkee dafa juum tamit ñu daal di am ñu mën a doxalee bu fekkee ne tamit donte li mu wax jàpp na ne dëgg la waye na daal di jéggalu Ousmane Diam dinañ ci ñew ak ay jangat bu ama am solo jëm ci mbir mu ne mel ñu ñaan jamm sax suñu réew ya ngeen jëf. sëñ bi jubluwaay bi du dara du dara du dara du dara ñu ñu ñaké nguur gi daf leen metti parce que on les a battu lamentablement ils ont perdu ce pouvoir là lamentablement ils ont perdu tous leurs avantages seni intérêt personnel rek mo leen tax dara taxu leen jóg loolu seen bopp lu dul luy jëm seen kafaka bopp ak lu jëm seen njaboot waaye lijjantiwuñu askan wi lool nag robinet yooyu nag wax dëgg faa la moo coupé man nag je les comprends très bien man je les comprends quelque part ku mu doonoon yow tamit mën nga bañ a mën nga ñëw def ni ñoom ni ñuy def ils sont dans leur rôle mais nag c'est peine perdue boo demee ba jamono nga xam ne carrément la la la valable woon ci 2023 valable ci 2024. te fas yéenewul valable encore ci 2025. ainsi de suite da nga war a dem toog noppaleeg xool yeneen pexe xool yeneen alternative xool yeneen pexe yu bokkul ak yu mel nii mbaa nga dem bay wala nga dem xool nan ngay entreprendre toog muy dox jeex na c'est fini c'est fini loolu nañ leen ko xamal léegi nag ñu ne noo jaar ci ay jaar ci jaar suñuy saltige sottiwul jaar ci ay prêtre sottiwul ñu ne waat xaaral ñi ñun ñëw ci dina l'islam bi encore mais yéen wat fofu encore ngén da ngén di ñëw ci tarika mais yeen da ngén di sonal sen bop rek mais saway saway gis nga ces histoires là ces histoires là man ma leen wax dem leen déglu wat jàngale sëriñ fàllu mbàkke dem leen déglu wat jàngale sëriñ saaliwu mbàkke dem leen déglu wat jàngale ñu tuddi tëdd sëriñ abdoulahat dem leen déglu wat bu baaxa baaxa baax ñu mel noonu ngeen dem ngeen déglu cheikh ahmadou rafahi mbake ngeen dem ngeen déglu ko dem leen ngeen déglu cheikh mohidine samba diallo dem leen ngeen déglu euh, ay audio cheikh ibrahima niass dem leen ngeen déglu ko déglu leen déglu leen yi may wax ni ñi ma ñi ma leen tuddal ni dem leen ngeen déglu leen rek dem leen ngeen déglu euh, nu mu tëddi serigne babacar si dem leen ngeen déglu ko dem leen ngeen déglu mam abdul aziz si tabax dem leen ngeen déglu ñooñu bu ngeen leen dégloo

li ñu fuglu woon yëpp tey 2024 yàlla defal ñu ko ngeen ne yéen a ko yàq dem leen ngeen xool du ngeen ko fekkee bu ngeen di dégg sama kàddu bàyyi leen xel li may wax nii bu baax a baax a baax wallaay képp ku jóg ne da nasaxal lii projet bi ñu taxawal nii ne dañ da nga koy nasaxal ba ko jaaree ci tarix mbaa ci diine wallaay doo ko fekkee. très bien loolu kese la. loolu kese la gis nga xam nga ci lan lan wax sunu 45 milliards yi ñu jëloon jënd kay armée Macky Sall doomeeraam bi jox ko ay nervi ci loolu lañu wax lañu war a wax xam nga ci lan lañu war a wax doomeeraam yi rey suñuy doom depuis deux mille vingt et un ak ci loolu la ñu war a wax xam nga ci lan la ñu war a wax ci rapport yi épinglé ay clochards yu nekk ci dëkk bi parang parang ci loolu la ñu war a wax xam nga ci lan la ñu war a wax ci nenn nit ñoo xamante ne dañ fi nekk di li defuñu lenn lu dul seen bopp ak seen i poos kese ci loolu la war a wax xam nga ci lu ñu war a wax sama gaay ci li war a wax mooy réew mi na fi justice am ci loolu la ñu war a wax mais pas ay Cheikh Omar Diagne wax na nii ci sëñ bi. muriti bàyyi leen complexe bàyyi leen complexe gi complexe gi ngeen di ba gi nga Serigne Touba dafa jóge fii dem lambar nekk maa yombe juróomi at yam fa njëkk hamul def kenn xamul fu mu ne mbaa ci lu mu ne juróomi at yam fa njëkk hamul def kenn xamul fu mu ne mbaa ci lu mu ne juróomi at frère ku tedd ki ci fajaru gaaw la jaket kërëm dugg ci jàkk ji di julli fajar jot ci ndigalu sunu borom ni war na tukki tukkib jàmm tukkib jàmm nag laa la wax de parce que tukkib jàmm la ci moom sénégalais nekkoon yaakaar ni woon sëñ bi bu demee du delsi mun leen dem leen ndekki leen ba suur bu añ jotee ngeen añ ba suur maa ngi dem waaye maa ngi ñëwaat kooku du kenn te kenn du moom moo mu ni illaa yaxaada laahu maalam yakuni wala yakunu abadan li mun waaye ñun kenn du ñëw di utal fu ñuy jokkoog fu ñuy jàpp fu ñuy ku ñuy traaye tànk ku ñuy téye ay mbagg ñun nekkuñu ci mbàkke ji ci bamba ji la ñu ne Basiiru Fall alxuraan ci bamba ji la ne ndeem sama maam moo liggéeyal Serigne Touba ba wan ñu ko ñun nekkuñu ci mbàkke ji ci bamba ji la ñu ne Serigne Touba képp every bay everything everybody anything Serigne Touba kase waaye kenn du ñëw di diaboliser koo xamante ne dafa ñëw pour liggéeyal réew mi ak Serigne Touba ay nit génn fii ñëw di la ñun ñu génn fii ñëw di la jàppale ay tànk wala ñu lay raayal say mbagg wala say ñu lay raayal say tànk Cheikh Omar jaañ anything yeah Cheikh Omar Diagne everybody Cheikh Omar jaañ day liggéeyal Sénégal parce que mission boobu la ko yàlla yónni déggoon nga mu toog fii ni bakkan la joxe àddiya parce que Macky Sall mënul ci moom lenn lu dul rey ko wala mu tëj ko kaso tey ñett bu mu koy bu mu ci def moo ko gënal tëj ko kaso wala mu ray ko kase la mën ci moom te bu mu ci def moo ko gënal bi ci des kooku ngeen bëgg génn fii di ko jaboliser jaboliser ak sëriñ bi sa waay sëriñ bi sëriñu ñëpp la Cheikhul Khadim nee na jaboote naa ñëpp naa uuf ñëpp ba mu jógee si ba mu jógee si tukkeem ba dani dani daa ñaan yàlla sunu borom ni que mu jéggal jullit yëpp mu jéggal réew mi ñëpp <laughs> kooku du kenn te kenn du moom barki alxuraanu karim Sherbi, Sherbi, cheikh bi cheikh Omar Diagne di wax na joxe na bakanam ñu bari dañoo waafoon ya ke lui seul ak Guy Marius Sagna euh, Mohamed Sagna ñom rek ñom ñoo amon tay ak ki nga xamantene deug deug moy Amadou Ba bi di dem ci plateau yi fan yi ñi de ñom ñoo taxawon ak ñu melni ñom mais bu wesso deug deug deug te Cheikh Omar Diagne nim ci sobo nim ci sobo non dëgg bi mu dëggu da ngay ñëw Cheikh Oumar Diagne lañu Cheikh Oumar Diagne lañu tëj fii mu génn génn ñëw taxaw ñu ne ko carrément propos yi nga waxoon mu jaaraat ci propos yi ñu ne ko diw wax na nangam ñu arrêté ko mu jaaraat ci propos yi ne nañ ma arrêté Cheikh Oumar Diagne moom dëgg dëgg dëgg dëgg bu projet bi demee ba taxaw ba sénégalais tey am ci accès am accès tey ci projet bi ba mën a ba ba projet ba projet bi day dem ba de tey au pouvoir. tey Cheikh Omar Diagne da cee joué tey rôle bu am solo ñoom loolu la ñu xam ñii tey di ñaxtu ñoom loolu la ñu xam moo waral tey ñu ne dañ ko bëgg diaboliser waaye du sotti du sotti de Cheikh Omar Diagne c'est quelqu'un c'est quelqu'un boo xamante ne ñoom ñoo ñooñu di wax amul kenn ñoom ku ko ëpp taxawaay fii ci réew mi amul kenn ñoom ku ko ëpp njëriñ ci réew mi amul kenn ñoom ku yëkkati kàddu bu raw moom kàddu yi muy yëkkati fii ci réew mi ay kàddoom dafay jëriñe ay kàddoom dafay defar ay kàddoom dafay yare ay kàddoom dafay fàttali koo xamante ne situation géopolitique internationale da ko maîtriser naan ko toog ci koo xamante ne situation géopolitique de l'Afrique da ko naan toog toog ci ah, koo xam dafa maîtriser les choses comme pas possible tey Cheikh Oumar Diagne tey polyvalent foo ko tegoon tey mën na fa dem foo ko tegoon tey mën na fa dem nga ñu am potentiel boobu Sénégal am potentiel boobu